mën naa jënd ak ndawal xewloo ko ci bésu tabaski mook njabootam te am tiyaaba tabaski ci ndawalam googu tontu li mooy déedéet tabaski sharia da ko jàngale wutal ko jamono waaye jàngale it naka lañ koy defee ak ci lan lañ koy def ku bëgg tabaski lim mën a tabaski rek mooy bahimatul an'am maanaam na wut am xar xar mu góor mu kenn tàppul bu amee ay béjjën sax moo ca gën bu ko amul te am xar mu góor muñ tàpp wala xar mu góor mu amul béjjën ba tey baax na bu ko amul mu wut xar mu jigéen bu amut loolu mu door a wut bëy bay wu góor bu ko amul bay wu jigéen waaye nag gannaaw xar bay ba tey nag nag man nañ ko tabaskee wu góor wala wu jigéen naka noon gëléem gu góor wala gu jigéen ñeent yi daal moom la sharia jàngale képp kuy tabaski yooyu lay tabaskee la ca gën mooy xar comme niñ ko taftalee loolu mooy ngiru imam malik radiallahu anhu am na ci yeneen ngir yi ñu wax ne gëléem moo gën ci lu ñuy tabaskee nag topp ca xar ñëw ci ñetteelu palaas bi waaye wax jooju nag buñ delloo ci cosaanu lislaam ci njàngaleem yonent bi dañuy fekk ne du dëgër lool li dëgër mooy li imaam Malik ak boroom xam-xame ngir mi jàngale te mooy ngën ji lu ñuy tabaskee xar lu waral loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ngi yoonal ci moom tabaski ñaareelu at ci gàddaayam gi ñaareelu at ci gàddaay gi ci lañ yoonal yu baree bari mel ni tabaski mi ci la bokk korite ak koor azaka yeneen yu bari ci ñaareelu at ci gàddaay gi la ko sharia yoonal waaye ba mu ko commencé ba ni mu wuy jee boroomam mësul tabaskee leneen lu bokkul ak xar te jàppande woon na ci moom lool mu tabaskee bay wala nag wala gëléem kon bàyyi gim bàyyi yépp rek di tabaskee xar ba ni mu wuy jee boroomam loolu mooy wane ne xarab moo gën ci lu ñuy tabaski tabaski sunna la bu dëgër ci képp ku ko man waaye ku ko mënul dalaa wàcc ku ko mënul wàcc na la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam at tabaskee na ñaari xar yu mat benn ba mu yéene ci bopp mag njabootam beneen bi mu yéene ci képp ko amul xeet képp ko amul tabaski ci aw xeetam kon yow mi amul tabaski xamal ne sharia santut la loo mënut wàcc na la du tee nag tabaski comme bésu feet la bésu xéwlu la nga xam ne bu dee senegal ak yeneen réew yu bari notal nañ aada ji ci diina ji sax yow amoo tabaski waaye am nga njëgu ginaar wala njëgu kilo wala ñaari kilo yu ndawal wala fu sa man-man toll nga jënd loola xéwloo ko yow ak sa waa kër loola lu baax la waaye du tekki ne daa tolloo ak tabaski wala dangay am tiyaabooy tabaski ci jëf jooju. wallahu aalam ñaareelu laaj bi sëriñ xaban mbokk mi laaj ñi nga xam ne dañuy jëlee ay nit la ci gën a bari ay jigéen lay doon fii ci senegal naka noonu ci yeneen réew ci réew yi Afrique yi yóbbu leen Saudiya wala Kuwait wala Liban ak yeneeni réew buñ leen di jël fii di leen yóbbu dañ leen di nax ne dañ leen di wutal liggéey wan leen sax ay contrat nangam lañ leen di fay nangam ngeen di léggéey te mbir ma xaqiqatan demeewul noonu dañ leen a yóbbu ngir jaay leen fañ jëmee xale yu jigéen yooyu ñuy yóbbu waxaale nañ ak ñoom ba noppi ñoom ñiy def loolu euh, jot nañ wala danañ jot njëgg jëfandikoo ko loolu jëf ju bon jëf la ju dàquwanteeg lislaam ab jullit wërta xalaat lu ni mel waxumaal di ko def jaay as gor njëgu as gor xaraam na ittifaaqan waaye lu rëy la fa yàlla subhaanahu wa loolu lu ñaaw la moo tax euh, nguur yi yilif suñu réew yii war nañoo am taxawaay yu gën a mat ci saay-saay yi def loolu teg leen daan yu diis yu méngoog seen ñaawteef yooyu ba ñu mën koo bàyyi keneen ku ko defuloo nit sa xel du xalaat nga def ko ngir ay daan yu metti ay senegalees ay yeneen doomi Afrique yu jigéen ñi ngi loru ci lii loru yu metti gëm loo leen dañ leen di wutal liggéey dem ba yegg ñu jàppee leen comme ay jaam di leen teg coona di leen liggéey loo liggéey yoo xam ne jaaduwul ci ab jullit muy jëflanteeg doomu aadama nii waxuma ak doomu aadama boo xam ne jullit la ni moom kon ña nekk foofa yor càgganteeg caay-caay ba sañ loola it yow mi leen nekkal fii di dimbalanteeg ñoom ci loolu di leen yóbbul ay nit na la wóor ne yaa ngi ci lu bon lu xaraam lu ñaaw loo xam ne xaq yu diis a diis la sa digganteeg yàlla waaye sa digganteek nit ñi ngay teg loolu ak seeni mbokk ak sa digganteeg réew mi yépp kon loolu jëf la ju bon ndax ñooñee sañ nañ leen a jàppee ay jaam ngir dañ leen a jënd déedéet asgor kenn du ko jaay ñoom ñoo gën a xam ne àdduna fii mu toll amul benn loi bu mayee jaay nit ak jënd nit jaay nit naan dama koy jaay ab jaam la wala di jënd nit nga xam ne bu doon jaam xàqam sax sañoo ko ngir luwaaye àdduna rawat na du jaam kon ña ñuy jënd doonuñ ay jaam ku ci jotee kenn la muy def weesuwul njaaloo sharia da ko war a teg daan yi ñuy daan ku njaalo waaye ñaawtee fa mu def muy di jéem a xalaat a jënd ay nit rek daan yu méttee métti la ko nguur yooye war a teg ñoom it ba seeni doom yay def loola ñu mën a bàyyi njubadi googu caay-caay googu nga xam ne ñu bëriñ ci loru jafe-jafe yu bëriñ ci am laaj bi ci topp sëriñ xaban te borom di laaj jullik tabaski ak korite imaam bi jiite ñaari rakk yi bi mu noppee mu jox keneen xutba ndax loolu dana wér wala du wér loolu masala la moo xam ne dañ koy bànqaasal ci beneen masala muy jullik juma xam nga tabaski ak korite ñaari julli lañ yoo xam ne sunna lañ ay naafila lañ sunna yuñ feddli yu dëgër julli juma nag bésu àjjuma di farata wecc tisbaar mi nga xam ne benn la ci julli juróom ci mazhabu imam malik radiallahu anhu bokk na ci charte yi tax juma wér ki xutba na jiite ki xutba na jiite lu dul ngànt bu ngànt amee aji xutba ji xutba ba noppi am ngànta keneen jiite moom dara newut ci ndax xam nga juma ak ñaari rakkam dafa wees dafa wecc tisbaar ñeenti rakk yu mat la woon mu mel ni dafa niroog lool na ñaari xutba yi dañoo wecc yeneen ñaari rakk yi ca tisbaar doonte dëgg-dëgg demeewul noonu moo tax nañ charta woon bu doon jullik tisbaar la wala tàkkusaan wala gee imaam bi commencé mënula dem ba am benn ràkk wala ñaar mu yemale fa julleem jox keneen mu ñëw di mottali te amul gànt loolu kenn sañu ko bu ñu ko defee du wér naka noonu kenn du xutba jox keneen muy jiite bu ngàntaamee nag moom ki doon jiite tisbaar wala gee ba mu amee ñaari raak ngant dab ko keneen ñëw motli loolu dara nekkut ci loolu dëppoo nañ ci kon gis nga juma ci mazhab bi charte la imaam bi jiite na doon ka xutba yeneen mazahib bi nag yeneen ñetti ngir ci des yëpp ñoom nangu nañ imaam bi xutba keneen jiite ko te tee teewul julli ga wér teewul julli ga dana wér masala mi buñ ko bëggee wàccee ci tëbaski korite te ñu xaw a wuuteeg jumaa ndax tabaski ak korite ay naafila lañ ay sunna doonte sunna yu dëgër lañ waaye doonuñu farat te jumaa farat la benn ñaareel bi julli jumaa ñaari xutbaam dañoo jiitu julli ga door a ñëw tabaski korite nag julli gi ñaari rakk ba sëlmal mooy jiitu xutba door a ñëw kon xutba gi tàqalikoo naag julli gi bu baax a baax ndax sëlmal nga ci julli gi loolu moo ñuy xamal ne tëbaski ak korite imaam bi jiite ñaari rakk yi bu mënoon a continuer xutba day bu fekkee amul ngànt mu xutba loola moom mooy li gën bu ko deful jox keneen it du te julli gi dana wér ndax liñ mayee ci la mayewuñ ko ci farata rawat na yeneen wuuti yi ci amaat rawat na buñ itibaaree waxi yeneen madahib ya kon daal ci gàttal boo gisee imaam boo xam ne day jiite tabaski wala korite waaye moom bu jullee ba noppi rek keneen mooy ñëw xutba bu mu tax mukk nga ne lii mu def baaxul wala ñii seen julli wérul ah baax na doonte nag bu dul ngànt bu dee daa am ngant moom laa baas waaye bu dul ngànt loola toon la gën la gën mooy aji jiite ci ñaari rakk yi mu xutba xutba gi wallahu aalam laaj bi ci topp sëñ xaban di laaj bu am solo jëm ci fóot yére yu am sobe xam nga jigéen ñi ñu bari ci ñoom jàmbaar lañ lool fóot yëre yu tilim ba mu set paase ko ba mel na mu war a mel macha allah waaye fóot yére yu am sobe ñu bari dañ ci am jafe-jafe ndax sobe ci yaramu doomu aadama walla ci ay yéreem wala ci barabam la ko mën a laabal mooy almaa u tahuur wala almaa ul mutlaq ndox kese ndox mu laab te mën a laabal ndox moo xam doo ko tënk ci dara du ndoxum nàngam du ndox ak nàngam ndox rek la moo tax sobe si taq ci yére bi bu la neexee nga wut ndox moomu raxas ba sobe si dañ nga xam ne ndox kese la raxas nga ko ba dañ na set na nga jël sa saabu wala sa omo ak yeneen yooyu di setal fóotee ko sa yére ba mu set comme bu la neexee nga njëkkee fóot ak saabu wala benn ci ay mbokkam ba yére bi set la nga ca bëggoon ci fóot ma tilimaay ba dañ na set na waaye nag atteb sobe baa ngi si nga wut ndox mu laab te mën a laabal jaarelewaat ko ci kon yére bi bu dee da ngaa njëkkee fóot ni ko mbokk mi laajee euh, ba set na taqatul dara dara dana yomb lool boo jëlee yére bi sotti ci ndox mu laab te mën a laabal ba mu jaar fa sobe sa nekkoon wala nanga ko fóotee tax na sobe sa léegi jaxasoo naa yére ba yépp nga jaarale waat yére boobu yépp ci biir ndox mu laab te mën a laabal wala nga sot ndox mu laab te mën laabal ci kawam euh, yére boobu daal dinay laab bu fekkee nag lii muy wax day mel ni yére ba setul ndax li feeg yaa ngi jël yére bi xooj ci paanu ndox mu set wecc mi ndox mi soppeekuwaat waat kon yére ba am na lu ca setagul wala yaa ngi sotti ndox ci yére bi ndox mi jaar ci yére bi ba wàccaat ko kont daal soppeeku ba tey loolu li muy tekk mooy setagul kon yére bu taqee sobe wala atteeb sobe nekk ca faw ndox mu laab te mën a laabal moo cay jiitu ba atteeb sobe ba sobe saak sobe ba dañ wala moo cay mujj fekk jëmmi sobe sa dañoon na waaye atteeb sobe wi doora a dañ sobe nag li feeg yaa ngi sotti couleur ba di soppe eh, di di feeñ ci ndox ma loolu setewul danga raxas ba nga xam ne ndox mi dana jaar fi mu nekkoon génnaat mel nam meloon waaye feeg mu ngay soppeeku rek loola la muy tekki mooy laabagul wallahu aalam laaj bi ci topp walla ñaari laaj fii ñaari laaj fi nekk bi mujjee mooy mbokk mi fam nekk dafa gis ay boroomi kër di wax seeni soxna ku ci demul tool duma la jox ak ay ndax loolu jaaru na ci sharia wala déet tontu li mooy déedéet bokkul ci xàq yi soxna ameel boroom këram di ko demal tool di ko bayal boroom kër gi bu dee ab baykat la wala mi ngi liggéey liggéey baneen soxna man koo dimbale ca liggéey ba waxtaan ak moom ci njëkk mu dimbale ko ci liggéey ba loola lu baax la loola lu baax la waaye forse da ngay ñëw bay dangay dem tool liggéey loolu bokkul ci ab sëy soxna si ak ayam alquraan a ko ko jox lislaam a jox kon borom kër gi da koo war jox waru koo aj ci dem tool ak baña dem tool loolu tooñ la noggatu la waaye lu daq dàqwanteeg njàngaleem sharia islaamiya la benn borom kër sañul ne soxna si boo demul tool duma la jox sak ay bu ko defee rek wàcc na aw yoon beneen laaj bi mbokk mi nee dafa gis ñiy jël surga ci ñetti anam lañuy jëlee surga benn bi mooy waxaaleel danga may liggéeyal bu ne wàccee ma fay la deux cent wala deux cent cinquante mille wala lañ juboo waaw loolu ci sharia lu dagan la loolu ijaara la ngeen waxaale ba juboo yéen ñaar ñëpp yow mii liggéeyloo ak kiloy lay ngeen xam liggéey bii nga koy dooyee lan la moom it mu xam ko kañ lay tàmbalee kañ lay yem ñaata nga koy fay lépp leer loolu bu ngeen ci juboo sharia amut lu ci ciy wax lu dagan la benn beneen bi mooy surga boo xam ne borom kër gi da koy jox jiwu ak fu mu ko bàyyi muy xëyal borom kër gi di gontal boppam wala bés nangam lay dem toolam bés nangam tool borom kër gi. waaw loola it lu mën a dagan la naka noonu ñetteel ñetteel bi moo bu ñaareel bi lañuy ñuy boolante ndax boobu dafa wax ne moom bu nawet wàccee day delloo jiwu jël bénéfice am waala kulli xaalin daal kii ñëw bëgg a liggéey boroom kër gi ne ko dama lay fay li ma lay fayee mooy saakoob kemba ngi nii barigob kemb wala ñaari barigo yi kemba gi danaa la jox foo ko bayee ak jumtukaay yoo ko bayee yow nag li nga may liggéeyal mooy nangam loolu leer fi ñoom ñoom ñaar ñëpp ñu d'accord ci loolu loolu dana dagan ci kaw ci kaw bu dee waaja a ci borom kër gi waralut ci surga bi ne ko lii ma jox la faw danga koy bay maanaam euh, jiwu woowu nga jox ko ak suuf si nga ko jox mu man ko faa bay ak jumtukaay yam koy liggéeyee loolu mooy fay gi ko war a fay ci lim lay liggéeyal nit nag boo ko fayee sañoo koo sart ne ko lii ma la fay faw nii nga koy defee déedéet la nga ko fay kay moom moo ko moom bu ko defee na ne nit sa yoon nekkut ca kon boo ko joxee jiw moom mu gis ne jiw bi da ko war a jaay def ci poosam suuf si nga a jox bu ko neexee mu def fa leneen wala mu luyee ko wala mu seet nu ko def daal loola sharia da koy daganal waaye boo ko charta waralal ko lii ma fayee la muy jiwu yi faw da koy bay mënoo koo dépassé feneen fi loolu moom day doon loo xam ne charte la buy yàq jëflante googu charte la buy tax mu génn ci ponk yi waroon a daje ngir jëflante gi mën a dagan wallahu aalam laaj bi ci topp mbokk mi waxtu wi mu war a génnee asakay alalam jotagul waaye ay mbir a xew ay jafe-jafe am ba ñim bëgg a jox asaka ji soxla woon nañ ko lool te waxtu wam ko war a joxe jotagul ndax mën na koo teel a joxe léegi balaa waxtoom di ñëw tontu li mooy azaka ponk ci ponki lislaam yi juróom comme weeru koor comme julli waxtu yu juróom comme xaj mag yooyu nag lu ci ne sharia da ko wutal waxtu kenn mënu koo jiital njëkk waxtoom ak lu mën a xew sañoo julli tisbaar te waxtoom jotagul amul benn julli boo xam ne sañ nga ko julli te fekk waxtoom jotagul bu may wax lii nag maa ngi bàyyi xel taqdimu salaa ci saan wala ci gee waaye taqdim googa tekkiwul ne danga leen a julli te seen waxtu jotagul aha kay ci seen daruur yi mu leen jiitu nga leen def kon daal ci gàttal amul benn julli farata boo mën a def te waxtoom jotagul muy wér weeru koor ak lu mën a xew mënoo koo def te weeru koor ñëwagul xaj màkka ak lu mën a xew mënoo ko def ci beneen jamono jamonoom ñëwagul nga di ko def naka noonu azaka loolu mooy li gën a wér mooy li gën a leer bàyyi ba waxtoom jot nga joxe ko nga xam ne war na la farat la ci yow nga door koo joxe loolu mooy li gën a wóor gën a mucc ayib donte nag ak wuute am na ci ndax bu dee julli geeg woor geeg xaj gi lu ci ne diggante ki koy def ak borom bi subhanahu wa la amul taraf saalis amul ñetteel bu ci dugg waaye azaka moom ki koy joxe ak kam koy jox kon bu gisee ne mën naa koo joxe te waxtoom jotugul ngir njariñal kam koy jox moo tax am ci borom xam-xam yi ñu bari ñu ne loolu lu dagan la lu jaadu la te am cosaan lu dëgër luñ ko teg ku mel ne abbas ibnu abdul muttalib doon bàyyi taxu yonentu sallallahu alayhi wa sallam am na at yonentu may ko mu def lu mel noonu gaawee joxe asakaam joo xam ne waxtoom jotagul moo tax lenn ci borom xam-xam yi ne nañ loolu lu mën a nekk la beneen bi mbokk maa ngi bànqaasal ci biir laajam bi euh, azaka boo ko génnee ndax sañ nga koo jox kuy naan sàngara wala muy tox cigarette wala ab saay-saay ak yu ne mel daal wala da ngaa war a seet ku baax azaka juróom-ñett ñiñ ko war a jox alquran moo leen tudd kenn par kenn bépp jullit bu bokk ci juróom-ñett yooyu rek sañ nga koo jox azaka yow sa jaan wàcc maanaam la la waroon def nga ko muy faqir bi li mu am doyu ko dund at walla miskin bi amul dara bu tàllulul loxo mën naa am du dund ba juróom-ñett ña jeex kon bépp jullit sañ nga ko koo jox doonte nag sa alal moom boo koy joxe moo xam joxe farata comme azaka wala joxe coobare yeneen sarax yi koo xam ne wóor na la wala am nga jot lu dëgër da koy dépassé fu neex yàlla da koy dimbani dimbanikoo ci dundam ak dundu njabootam wala faneen foo xam ne fu neex yàlla la moom moo gën nga di ko jox koo xam ne wóor na la ne moom euh, mën naa wala am nga njortu ci ne mën naa mu def ca leneen ndax mën naa jël asaka jépp jox ko kenn nit waaw asaka ji bu dee bariwul bu dee bariwul nga def ko ay xaaj jox ko nangami nit ku ne astuur du ko jariñ dara loolu amul njariñ kon bu dee bariwul jox ko kenn mu mën koo jariñoo moo gën bu baree ba nga def ko ay xaajit faxe bañ a koy jox ku ne nga jox ko lu am solo loo xam ne dana ko féetee fenn dana ko jariñ jariñ lu rëy loolu moo gën foofu li ñu bari def génne asaka def ko ay xaaj yu ndaw jox ko mbooloo mu bari ku ne as tuut soo xam ne mën naa am du ko jariñ lu bari waaye nag bu fekkee bari na ki koy jox loola nga jox ko sax ëpp na ko dundub at bu ba mu amee dundub at rek atteb faqru génn na ci moom la ca topp kon moom waroo ko koo jox da nga faw nga jox ko ñeneen wallahu aalam